jaajëfal nañ leen ci kóolu geeg bàyyi xel suñu programme ci waxtu wi ci xibaar yi ñuy fas ne jukkil jot na sënkam bisimila ca xibaax yi bokk na ca ginnaaw ndox mu bëri ma wàcc ca dëkk bu sell ba ca Touba Mbacke Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khadr yore kàddu ko sang bi eh, daan nay eh, fësal eh, rek taxawaayab sang bi di mun Serigne Mountakha Mbacke Bassirou xalif général kulli murit 200 millions la ñu jukki ngir nag jagleel ko aji way loru yi yooyu lee jamono jooy sax jàppale nañ ñeenteelu bakkan wadd nañ ca Touba Mbacke ci ginnaaw ab miir bu daanu mu nekk kon mbir mu tiis foofee ca dëkk bu sell ba ca Touba Mbacke. Bougane Gueye Dany moom lu mu yàkkul euh, njiitu réew mi ak nguuram di régime bu bees bi da koo fàtte lu mel ne xamee gàll na ko ci loosam moom euh, njiitalu gëm sa bopp leeg jàmbaar ne nag ak tële la fi gis ak it loo xamante nii daanaka jaarul ci yoon moom mii di Bougane Gueye Dany kon daan nay sàkku ci nag mbirum inondation bi jëriñ Cheikh Tidiane Dièye daal ci indi tontu dañu waaju ci xibaar yi bokk na lu jëm kon te guddir yi am na bus boo xamante ni waa sapeur pompier ñoom ñii daal di war a wattu way wattu kaaraange yi ñoom daal seen bus boobee moo ne tàkk ni jéppét lu ko taal ak lu ko waral dañ caa nag Amadou Diallo ca diwaanu Kédougou yeneen ci ponk dañ ko ci njàmbaas bokk na ci yëglekaay ñu xëy jàng tey ak euh, wala bokk wàllum tàggat yaram ak classement FIFA Sénégal bi nga xam nag ñàkk na ñaari euh, ponc wala ñaari toog di ñaari place buñ ko ca boolee daañ ci toftal li ci yëglekaay yi ñu xëyndoo tey ak Abdoulaye Dieye moo ñu koy jàngal fa la ñuy yëkkatee bi lay jutaay ci kanam ñu tàbb génn ci faram fàcce gi ahlan wa sahlan marhaban bikum nuwayikum wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yattale xibaar yi dañ kaa junjee sànq ci njëlbeen bokk na lu jëm ci ndox mu bari ma euh, sebbi ca dëkk bu sell ba ca Touba jur na ay loraange yu bari euh, ci ay euh, askan fofe bokk na ci sax daanaka tey ji ñeenteelu bakkan nee na ñu wadd na ca ab miir bu daanu démb keneen ko ko def ñetteel moom courant moo ko fàtt lu ci mën di am Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké jukki na ñatti miri million ngir nag nag jagleel ko aji way lor yooyu du samay kàddu ki yore kaddu ko di sëriñ Bassirou Mbacke Abdou Khadre moo kaa jàllale ci euh, kon euh, foofe ca diwaanu euh, tuuba kon ñu ànd ci ak sunu ndaw ya ñu fa toppaloon xibaar bi ku ci mel ne Aïssatou Ba ak Adama Ba. sëriñ bi nee na képp ku fi dëkk rek. te ndox mi laar laal sa kër wala mu laal sa alal wala lu mu mën a doon rek sëriñ bi wax na ne mi ngi lay masawu ci loolu te di ko ànd ak yow. laa waral nag sëriñ bi. ci yërmandeem jaatu wax na liggéey bii xam na ne ni ñi sonn nañu ndax ndox mi ñi dugg na ci seen biir kër ñi dugg na seen mbedd bi mootuñu jàll mu ne kon yëkkati na ñaar téeméeri million joxe ko ngir tàmbalee ko nag da ko tàmbalee rek ndax juróomi téeméeri million sax la waroon génne loolu la waxoon da juróomi téeméeri million wala milliard laa war a génne sax joxe ko tàmbalee ko waaye ginnaaw bi ñu ko waxee ne ko na tàmbali rek fu ñu toll mu tollu fa ak ñoom mu ne kon na joxe ñaar téeméer million bi mu ko génnee itam ngir bëgg ñu ñu tàmbalee ko ndimbal teg ko nag ci ñetti daayira yu mag yi nga xam ne ñëpp xam nañ seen taxawaay ci dëkk bi. ñu boole ñetti kuréel yëpp nag mu nekk leen ñoom ñu ñu ñu waxtaan seen bi ba tënk ko sëñ bi moom joxe na xaalis bu noppi waaye ginnaaw bu loolu jàll it nag ñuy soññ bokkitaal bi murid yëpp. ak képp ku bëgg lu baax te man cee jëf dara lu néew néew bu mu ci xeeb dara bu mu ci yëm dara ndax euh, lottu nit ñi moo toll foofu te nit ñi kat hal adullukum ala tijaratin tunjiikum min azabin alimin tu'minuuna billahi wa rasulihi wa tujaahiduuna fi sabilillahi bi amwaalikum wa anfusikum kon jihaat ci sa jëmm ak sa àll dara ëpp ko doole kon sëriñ bi naan ne mi ngi jege taalib bi yëpp lépp loo leen waaye mën a dimbale na ko def mungo kon di woon Touba Mbacke ak lu soxol kon walu ndox mu meeg jiyee jëmu def ak euh, ki di Serigne Bassirou Mbacke Abdou Khadre euh, mi doon jotale kaddu sang bi ci taxawaay goge ci euh, koppare ñu ko jagleel ci aji way lawru yi mankaaju ñu ci bop xibaar yi ki di Bougane gey Dany moy jité coalition gom sa bop les jambar dembu ci àll ba ji def na jotaay ak taskatu xibaar yi mom nak nay dal ci gouvernement bi ak Cheikh Tidiane Dièye ci walum inondation yi waaye tuumaal na teg na di état bu Sénégal nga xamante mom jitalu rew mi dafa danaka weddi ay kaddum wax lu worok uh, safanu deug uh, ba tax lolé lam ko jappé moy ngir ar uh, ki di yeli mané jow nit di Ousmane Sonko lolé nak muy wo ci Sénégal yi ngir ñu baña bayyi lu ñu mel di jall ci rew mi ba tax nañu fobo fep ba deugmal gi ñu deugmal jonganté législative yi di palum pencum daw rew mi ñu man ca faré ca borup ku jéggi ngir jappal len tank dañ ci and ak Mansour Diassé gëm sa bopp di Bougane Gueye dani amal na conférence de presse àllarba jii dellu si si mbënd mi nga xam ne am na fale sa Kaolack ak sa Touba muy xamle ne lu jëm ci wàllum taw mënuñ koo teg ci ndoddu parti politique waaye lu jëm ci wàllum gestion wala fagandeku lu jëm ci wàllum mbënd ci ndoddu nguur gi la tegu. diggante Kaolack Touba ak Kolda am na taw yu métti yu fa am mu indi ay inondation malheureusement état bi ñu yor état seetaan la état xusma ñàpp la. état la bo xamné ne li ñuy wax mo ëpp li ñuy jëf. ba tay muy ñaar sénégalais yi ñu jox majorité parlementaire ñi nga xamante ño fété ci l'opposition bi ngir ñu mëna indi ay léral lépp lu jëm ci walum wàllum coowal rawat na li di inondation yi. ñu ngi inviter les forces vives que ñu bolé sen doole pour que élection yi ñu jëm ñu jox majorité opposition. te yaakaar naa ne suñu campagne sax mën naa bañ a metti. ci beneen wàll kii di njiiti gëm sa bopp di xamle ne njiit réew mi daa tas lii di assemblée nationale ngir mun a protéger kii di Ousmane Sonko nga xam ne dafa ragal ngir dem foofule. bind bind ne la treize sab soq ne la douze nga ñëw waxtu jëf jot nga jëfe la soq ba waxoon xam nga buy xool ragal dëgg ci Sénégal. le premier ragal du Sénégal c'est Ousmane Sonko. mu dellu si di xamle porte dina porter plainte que le pôle judiciaire du BES, bi ñu taxawal fan yi ñu génn ngir ñu indi ay leeral ci coowal LONASE ak avec di ASER. moo ñun ñu le pôle financier boobu danañu fa déposer une plainte ñun danañ leen jox liggéey. ca njeexteel ba Bougane Gueye Dany di les sénégalais yi ñu l'opposition opposition bi ngir ñu di majorité parlementaire ngir mun imposer li di cohabitation fale ca assemblée nationale. am na solo jaajëfal nañ ko moom moomee di euh, ki nga xam ne moo di Mansour Diassé ci xibaar yi dañ ci woy ak lu soxal kon euh, ci euh, événement religieux yi nga xam nag dañ ci nemmeeku yenn saa ay xeetu mbir yoo xamante ni dafay doy waar lool bu jëm ci ñi nga xamante ñoom ñoo di bu ñuy def seeni rek kon xeetu xew yooyu ak lañ ca rax ci ñëw ci xibaar yi waaye maa ngi ko wax léegi ak ca diwaanu Tamba kon ak sunu naataango du Diallo jëm na ci li nga xam ne moom moo soxal kon foofee mu mel ni daal dafa am ab xew-xew bu fa am bokk na ci lu soxal ab bis boo xamante ni mu ngi jóge ci euh, waa sapeur pompier moo takk jëppét loolu nag jéggi dayo lool ndax ñoom ñooy soowiwaatee ñoom ñoo am jafe-jafe bu nu mel dañ ci ànd ca diwaanu Tambacounda ak Amadou Diallo. dañuy dajaloo euh, ñaari at yu ne pour waxtaanee ci problème commerce ak ñu jël ay dogal pour euh, nu ñuy jéem fexe ba nga xamante ne lépp luy jënd ak jaay ci àdduna bi gën a gën a yomb. Euh, ci diggante réew yi yoo xamante ne ñoom ñoo bokk ci organisation mondiale du commerce ñun nag euh, suñu participation donc euh, ci treizième conférence bi am na solo waaye gis nañ fa aussi ay résultats yoo xamante ne lu ñuy naan résultats yoo xamante ne am na côté bu baax am na côté yoo xamante ne des na. amna ci subvention yo xamantene euh baxna way amna ci yo xamantene yu ci ëpp aussi yo xamantene baxul parce que day yak euh, lepp lu nekk ci biir géej bi notamment jën yo xamantene ñun soxla nañ ko parce que buñu accorder accordé subvention yu pêcheurs yi surtout réew yo xamantene ñom ñoo gën avancer ñoo gën développer day indil problème ñun suñu suñu activité pêche donc accord bobu am nañ ko depuis 2022 té bëggon nañu complété ko mottali ko parce que am na li ci des loo xamante ni liggéey bu ci desoon waaye ba léegi avancé woon ci agriculture aussi euh, am na lu ñu naan politique agricole commerciale euh, politique yooyu dañ leen bëgg soppi parce que dafa am aussi ay subvention yuy tax euh, béykat bu nekk Union européenne buñ ko jàppale moom day tax ba nga xamanteni ñun suñu béykat yi peut-être duñu mëna jaay parce que subvention loolu moy effet perverse wala effet de distorsion yu ñuy créer xam ni day am lu muy yàq ci ñeneen les états décidé nañu continuer waxtaan ci règlement différent moy lepp lu lu système bi genre tribunal la rek loo xamante ne mooy régler problème yi ci diggante réew yu bokk ci organisation mondiale du commerce. ñu ngi jéglu ci bu jëm ci ci comité national bu jëm ci wàllum négociation commerciale ak internationale ci wàllum jënd ak jaay la ko amal kon euh, ngir nag waxtaanee euh, tënk ya amoon ca ndaje amoon ca Abu Dhabi ak lu soxal wàllu lu mel ak euh, bànqaaso ci ministère bi ñu dénk wàllum jënd ak jaay maa ngi koy wax sànq ci xibaar yi bokk na lu jëm ci kon Goudiri ab bis daal moom. moo fa daal di tàkk jëppét bis boobee nag bus air Goudiri la jóge woon kon ci Dakar euh, ci 18 euh, diggante Dakar ak nag nekk 18 euh, ci àll ba ji bi fukk bi juróom-ñeenti waxtu jotee ci ngoon di 19 heures ñi ci nekkoon ñëpp nag daal dañ leen a mujjee évacuer waa sapeur pompier ak gendarmerie ñoom ñoo ci daal di kon taxawu bokk na ci capitaine ma Dieye bu cent onzième compagnie de sapeurs pompiers bu Tamba ci jooyanti noonee sax la demee maanaam bus de guddiri ab kon horaire lu guddiri la bo xamanteni dafa tak ci diwan tamba ak amadou dial sapeur pompier yi baye ko fi ci tamba ku nar lañu wo tay ci alarma yamok fukki fan ak juroom ñett ci wéru septembre 2024 bi juroom ñaari waxtu ci ngon kaftalay fukki ci mili pour ben bus bu nga xamanteni da ron tak ci route nationale numéro 1 bi fele sa wettu guddir yi tollu ci témèr ak fukk ak juroom ben ci kilomètre mel na ni bis bi nag horaire Goudiry la woon nde mi ngi jugee woon Dakar mel ni ku jëm Goudiry ponk bu njëkk bi mooy ab soldaar bu nekkoon ci bis bi moom ak yeneen naataangoom jotoon nañu grawale ñëpp ñu nekkoon ci bis bi ba kenn jëlewu ci lor ñaareelu ponk bi mooy gendarmerie nationale bi ñu leen woowee ñëw nañu defal ñu li ñuy wax périmètre de sécurité maanaam arrêté dem bég dikki bi pour safara bi bañ a wàll ci yenn oto yi wala nit ñi fa nekkoon ñetteelu ponk bi mooy service bi ñuy wax eaux et forêts ñoom it bi ñu leen woowee ñëw nañu ci bërëb bi def liggéey bu mucc ayib commencé fay lakk gi sapeur pompier yi nga xamante ni fi ñu jugee woon dafa sori lool ne ëppoon na téeméeri ci kilomètre ba nga xamante ni bus bi fayoon nañu ko seeral ko it ba mu sedd lu jëm ci wàllu li ko waral nag ñu ngi koy bàyyi ci loxol gendarmerie nationale muy ab l'enquête ginnaaw ba li amee ñu ngi jaajëfal soldaar boobu ak ñëpp ñi nga xamante ni tey taxaw nañu taxawaayu sapeur pompier di rafetlu encore lëkkaloo bi nga xamante ni am na ci diggante gendarmerie nationale eaux et forêts ak brigade nationale des sapeurs pompiers ñetteelu ponk bi nag mooy ñu ngi woowaat suñu mbokk ñu ngi leen yi vérifier bu baax bàyyi xel sécurité bi lu jëm ci wàllu marchandise yi nga xamante ni tey bu safara amee mën na yokk xar mi karaw wala moom ci boppam mën na waral safara tamit nañu ko bàyyi ñetteelu ponk bi mooy ñu ngi leen di ñaan li nga xamante ni moom mooy extincteur muy jumtuwaay bu nga xamante ni bu safara commencé am mën na ko fay laata muy juyux musiba bu mel nii ñu ngi leen di ñaan yéen ñiy tegu ci kaw tali bi ngeen gànnaayoo ko jaajëf Amadou eh, Diallo ci joyandi kon du bu waa sapeur pompier waaye bisu horaire

taxawaay yi comportement yi Mansour Diassé ci leer at ñu nemmeeku ay xew-xew yu ñu amal ca ba ñuy màggal wala ba ñuy gàmm te ñu jàpp ne dañoo waroo ak worma yooyu la bés yooyu la xew-xew ñenn ñi jàpp ne dañoo niroo ay soirée yoo xam ne dañu fay fësal loo xam ne dafa wuuteeg li ñuy woote yooyu la bés doon sàkku ñu ko fay amal ci bés boobu le ba tax ñu jàpp ne war nañu xoolaat bu baax a baax ay berndeel wala yenn ci ay solin yoo xam ne ñu ngi koy def ca ba ñuy màggal wala ca ba ñuy amal gàmm bi la phénomène nag ñu nemmeeku ne mu ngi gën di yokk bu baax a baax ci xew diine yi góor rawatina ay jigéen ay célébrité wala ay nit ñu am koom-koom ci Touba wala ci Tiwaawoon ca ba ñuy amal xew-xew yu diina yooyu le ñiy faral di organiser ay ndaje yoo xam ne ay góor ak jigéen ñoo fay yenn si ay doxalin ba fay am amul daray lislaam ci yenn si ay kër ay doomu aadama di fa dajaloo di fa amal li ñuy tuddee ay buffet di niroo ay soirée yoo xam ne dañ ciy concurrence ci solu ak wone dayoo lii nag waroo bu baax a baax ak valeurs yi nga xam ne lislaam moom la woote te ñi nga xamante ne mooy suñu njiit yi woote wuñ li ni mel yi la xew-xewi diine ñi ko doon amal ngir solidarité jàppalante fexe ba dajale doomi aadama yi def ci ñoom ngëm booloo dajaloo njub ak ànd ci diine nekkoon dëgërlaayu suñu société jot ñu jóg taxaw ngir fexe ba préserver li fexe ba ay jëf yoo xam ne day ñagasale xew-xew yi le di amee ci dëkk bu mel ni Touba wala Tiwaawoon wala yeneen i dëkk ñu xeex ko ba bañ a may ñi nga xamante ne dañuy diingat lu jëm ci wàlli xew-xew yi diine yi le ñu bañ a am dëgg ci suñu kaw ko duppee ab folklore maanaam mbir yoo xam ne ak xumbuteef dëgg la euh, mu mel nag day génn dëgg-dëgg wàllum cadre diini euh, la ko taxoon a jug euh, jot nag nit ñi delluwaat ci njàngalem sunu borom delluwaat tamit ci njàngalem mag ñooñee nga xamante ni ba ñuy wooteeg màggal dafa am fu ñu ko teg waaye ba ñuy wooteeg gàmmit dafa am lu ko waraloon nit ñi bañ caa rax leen loo xam ne bokku ca wala boog bañ caa sos lu ca sosuwul dañ ci ànd ak Ndella Ndiaye ak Serigne Niang nañ ci terrain bi. diine yi fii ci Sénégal nag commencé naa jéggi dayoo li ñuy digle ci bés yu sell yooyee nag dafa mel ni jëfeewuñ ko looloo waral sénégalais yu bëri daal di naqarlu li ni mel. ren moom affaire yi dafa ëpp franchement parler ku dem gàmm ga ku la lu fekkee ne guddi yonent bi moo la tax a jóg am na ñu ngi koy defee normal bu fekkee ne guddi yonent bi taxulaa jóg. lu la neex nga def loolu sa bopp la yow yaa xam ñun jigéen ñi ñoo war a xoolaat suñ toogaay. Euh, c'est vrai man je vois que c'est pas normal parce que ba bu sell déjà boo fa demee danga nga war a sollu yiw sell li la fa andi tamit nga respecté ko. boo mënee jàng alxuraan. jàng boo mënee jàpp si liggéey bi tamit. ma def ko. bu ñu sukkandikoo ci soxna si di wuyoo ci turu Mawlune Ball mu ngi sàkku ci kilifa diine yi ñu gën a jubbanti waa taalibe yi te taxawu ci li ni mel. teg waa Tiwaawoon nañ si wax beneen yoon kuy duggati Tiwaawoon na nga sol sell musóoru kaalaw loolu dafa yomb benn bés mbala ñaari bés loolu dafa yomb nañ ko sellal ngir yàlla ak yeneen bi nañ dimbale nit ñi nañ dimbale nit ñi chaque jour maa la gën a bëgg a siiw maa la bëgg a gën def nii maa la ni di wane wu booy wane wu am na ku la ëppale te wanewu ko defu ci dara nañ bàyyi puukare bu ñuy def nit ñaa ngi dee xiif dëkk baa ngi métti ñu bëgg a jël nekk naan dañuy puukare def leneen. soxna yi nag ñoom ñu ngi ñaaw lu colin gi ci bërëb yu sell yooyee waaye ñoom ñooñee ñu ngay wéy di xamle ni lépp ci yar gi la ndaxte waajur yi am na ñuy mel ak ndongo yi rek ci biir kër yi bu ñu génnee ci biti lépp mën naa yemb. itam ñun parents yi am nañ ci responsable parce que da ngay gis sa doom mu jël sol loo xam ne du yoon nga bàyyi ci loolu mu dem yóbbu ko foo xam ne ay nit nga fa daje loolu rafetul nit ki balaa muy génn da nga ko war a ormaalal ba pare balaa muy dem ci ay mbooloo yenn mbooloo mais sans nit ñi ñu yaree léegi baaxatul ñi ñu yare wuñ ko suñu doom yi te yar dafa am importance ci doom. lu ñëw rek ñu ëppal ci lu ñëw rek ñu ëppal ci waaye am na loo xam ne liy gàmmu liy màggal dañ ko war a fonk boo nekkee sa biir kër nag lu la neex nga def waaye kër dëkk Seydi Babacar bee ba dëkk El Hadj bee am na leneen la fa nit waroon a def lu dul teg ay greffage yi nga xam ne amul fulla amul fayda. jërëjëf Ndella Ndiaye moo ci doon def liggéey ci askan wi doon kon yàbbi ci wàllum nag xeetu jëf-jëf yooyu nga xamante ni dañ koy xew-xew yooyu di am eh, ci wàllum xumbuteef yooyu am ci wàllum xew-xew diine yi Euh, ci wàllum tàggat yaram dañuy daal di tab bi classement FIFA ba euh, Sénégal kon euh, mu mel ne bukki ba ko mattoon daal moo ko ñëw xusiwaat jamono jile ci wàllum ñàkk place am ginnaaw ba ko ñàkkoon ci weeru sudet bee ñu génn daal ñàkkaat na ñaari toogu ci classement FIFA bi ñu amal niki alxames ji kon tey ji fukki fan ak juróom ñeent ci weeru satumbar bile ñoom gaynde yi kon yu teraanga yi jàppale ne fi mu nekk nii daal ñaar fukk ak benneel bi place ñu toog bu Euh, Afrique Sénégal mi ngi daal ba tey ci ñaareelu noomi toogu euh, ci ginnaaw Maroc bi nga xamante ni moom fukk ak ñeenteel la am ci euh, àdduna woon nga këpp Égypte nag moom mi ngi ci ñetteel bi toogu ci kanamu Côte d'Ivoire nekk réew boobu yi nga xam ne moo jëloon sax Coupe d'Afrique bi ñu daal di génn. loolu jëm ci xibaaru classement bu FIFA bi nga xamante ni daal nañ koy fësal ni ki tey jile Euh, ci euh, ñet euh, ci benen xibar soo ko ne ci tournoi UFOA ak U20 yi Sénégal kon jàppale ne ak Gambie neneen lion yi daal ngir am place en demi-finale kon équipe nationale bu Sénégal ñi am ñaar fukki at yu koy yes dañu kon dajel ak Gambie ni koy tey ci alxames ji muy nekk seen ñaareelu gu tournoi UFOA A bi nga xam nak daal ñu koy amal ci Libéria ci jongante bobé sax jàppale ne kon ci bilep ak bee ñu génn euh, ci catégorie yooyu lay euh, ñoom ñi ñu bokkaloon ku ci mel ne Serigne fallu Diouf ñoom nag daal euh, li ñu wax rek mooy bëgg nañ ndam ngir ñëw ci demi-finale yi ginnaaw kon forfait bu Mauritanie ñii di gaynde yu Serigne Saliou Dia yi dal euh, fi mu nekk nii dañuy dem directement ci dernier carré bu euh, bu fekkente ne am nañ victoire ci bilep lépp jongante kon champion d'Afrique en titre du Sénégal dal fi nek ni moy euh, rew mi ñu jox favori bi di le grand favori ci bilep compétition ci noné la daal di ñëwee ci njobbaxtalu xibar té moy ponk bi mujj yëkkatee ko jotaay bi ginnaaw bobé té dañ ci teewlu ki di Abdoulaye